je suis le choix de la commune donc je suis candidat aux prochaines élections pour les localités au soir du 23 janvier 2022 Inshallah. Quel ok programme nga le programme bi est euh, déjà euh, yéene bi ah, parce que ay dom lañ hommes lañ dëkk donc doom moom jëriñ rek donc defe euh, politique du lenn l'art de gérer nit ku ne da nga war a am métier ba pare soog a dugg ci politique politique defe naa loolu la yàlla tànn Seydina Mouhamed ni ko yaa gën si nit ñi demal nga politiqueal ma diine l'islam donc defe naa ni ñun ay doom lañu fii lañ dëkk donc defe naa ni suñu devoir mooy participer si développement gox bi defe naa loolu ñu ngi koy def ci secteur sport bi ñu nekk déjà on a un club qui dure depuis 12 ans il y a des internats y a on a amené pas mal de jeunes donc mun naa ni tey boo jëlee lii nga xamante ni mooy euh, l'emploi dëgg sooxe na mooy la formation sooxe na boo gisee ñun Grand Yoff lañ dëkk Grand Yoff c'est quatre-vingt donc Sénégal mun naa 80% euh, de la population ay xale lañu rawatina Grand Yoff gi ñu dëkk muy déjà genn wàllu million nit mun naa ni huit kilomètres carrés ku ne ku ne Grand gi di la violence di l'insécurité et autres loolu nag dafa am jàngat gu bëri ci am mooy lan mooy parents yi seen loxo jotul seen ginnaaw mooy lan mooy xale yi amuñu éducation éducation la tax parce que euh, euh, waajur yi li ñu mënoon mënatuñ ko donc de ce fait que euh, les enfants ils sont livrés à eux-mêmes, c'est mm, mm, euh, limite les enfants de la rue. Donc loolu dañu wara a euh, defal leen formation formation plus wutal leen ay liguey. mun naa l'assainissement bo xolé Grand Yoff day tar rek bu bu bu bu sax Grand Yoff inondé donc loolu té té té Almadies ay nit dong ko euh souf Almadies gënul souf Almadies gënul souf Grand Yoff lépp Sénégal la mais ñun wa Grand Yoff ñun ñun lañ joxul cër.

nit ki fo fo dëkkul yeewoo woo fa mënoo fa jiite du question ko xaalis rek non ñun liñ soxla mooy compétence ñun liñ soxla mooy ki ñu gën a bëgg li ñu soxla mooy ki ñu gën a yéene te defe naa ni compétence boobu euh, ak yéene boobu ñu ngi si ñun parce que mun naa ni secteur assainissement ñu ngi si on essaie de on achète beaucoup de choses pour la commune boo xoolee la la réinsertion ñu bëri tey ay def defkat du ñaawteef la ñu woon mais tey grace à grâce à Allah subhanahu wa taala suñu jëmm ju oyof yi tax na ñooñu bàyyi nañu ñi takk nañ jabar ñi delluwaat nañ ci biir société bi donc yooyu noonu dafa nekk ay réalisation yoo xamante ne moo isse nit ñi ba ñu am yéene pour bëgg ñu ci ci li nga xamante ne mooy ñuy jiite recrudescence violence bi agression yi grand yow tout le temps ñu koy wax loolu loo bi vraiment mais cause bi euh, cause bi euh, dafa am loo xamante ni waajuri la am na loo xamante ni njiiti la Wajuri la moy euh, dom boko amé amee wara yar parce que su la ko yàlla dënkee yaa ko yar njiit la parce que ñun dañuy impuissant face à ça da ngay dëkk Grand Yoff tay ji amna ño ñoo xamante ñoo dugg ci plaza da ngay dëkk Grand Yoff tay tay lépp lu lépp lu lépp luy carte carte kayu xaliss lépp luy Grand Yoff ya plus de 600 bars. bar tey ji dom Grand Yoff rek moy dem di jënd di di di am 200 francs di ko di ko jouer carte carte xaliss pour jëm ci am dara du deug donc dafa am yow yu bare yoo xamante ne tey jii eh, moo ñu moo ñu moo ñu vraiment moo ñu moo ñu dugg moo ñu moo ñu soxal pour ñu xam ne ñun rek ñoo mën a développer fii